salaamaaleykum mbokku internetu 24 actu yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ñu am mbégte di janoo ak yéen saa su nekk di leen dalalaat ci seen numéro bi nga. ñu leen di dalalaat ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi leen ko mu di seen entretien muy am fii ci 24 actu yi ñu ciy dalal nag ay kàngam yu bëree bëri tey nag ñu am nag invité bu spécial boo xam ne kenn dootu ko présenté ti fii ci Bawol mu di El Hadji dugg Gueye ñu bëri xàmmee ko ci mille bi ñu nekk mu di milieu médiatique bi mu ci amal liggéey bu am solo tey nag moom lañ nar a feggool daal di nar a waxtaan ak moom nag ci ay ponk yu bëree bëri waaye laataaloo rek dañ leen di souhaité rek suñuy meilleur ba di leen ñaanal rek at mi ñu dugg mu di atum 2021 mu nekk at mu naat nekk at mu neex bañ a mel ne à 2020 bi ñu génn ndaxte 2020 bi daal gis nañ ne am na ay yu bëree bëri yoo xamante ni am na ci ay gàllankoor yu méttee métti yoo xamante ni daal am na ci 2020 bi ñuy ñaan rek suñu borom euh, mu daal di ko fi yemale waaye laataa rek ñuy dugg rek ci bile waxtaan dañuy daal di dal rek suñu invité comme ni ma ko waxee sànq ci ndoxtal li mu di El Hadji Modou Gueye ñu bëri ràññee ko lool euh, fii ci Bawol El Hadji nuyu naa la. waaw maa ngi mm-hmm. di la dalal. kontaan ci dalal bi ngeen ñu dalal ci seen euh, studio bi macha allah. di nuyu également technicien ak caméraman yi nga xam ne ñoom ngeen di liggéeyal fii. ci 24 actu muy benn site boo xam ne vraiment maa ngi koy suivre. mais yéen a ngi def liggéey boo am solo ci biir département bu Mbacké. jërëjëf nit ki boo ko dalalee jaadu nañ ñu xam mooy kan ñu bëggoon tuuti rek xam kan mooy El ak parcours yi nga xamante ne nii jot na cee jaar. waaw euh, El Hadji mu liggéey citoyen la mais également taalibe Sëriñ Tuuba la mhm. boo xam ne mi ngi fekk baax Diourbel mais dëkk Mbàkke présentement mhm. avec sa famille mhm. bon nekk euh, d'abord un enseignant de profession ensuite ma jóge ci loolu euh, dugg ci wàllu communication ak information jaar ci ci ay rédaction yu bëri bi ci gën a ràññeeku di Walfadjri bi ma ci jógee nag euh, li gën fës léegi ci li may def mooy wàllu communication. Mhm. mais également ba léegi maa ngi ci journalisme bi di ko def. Mhm. mais je suis un spécialiste de la communication parce que mhm. euh, je suis titulaire d'un master en communication. Euh, depuis euh, ay années. donc mais également euh, consultant la ci wàllu communication également mais chargé de comme la mais aussi. maa ngi administré benn site bu tudd SENactu qui fi représente également un journal qui s'appelle Vox Pop mhm. mais également une télévision qui s'appelle TTV d'accord euh, El Hadj gis nañ ne à chaque année bu fekkee ne année bi day jeex dañuy gis ki nga xamante ni moo di njiitum réew mu fi mënti nekk day def li nga xamante ni moo di discours a la nation démb ñu gis ne Macky Sall daan nay amal benn discours ñu bëggoon a xam rek nan nga ko jàngatee discours boobu la waaw discours à la nation nga mooy euh, tradition la c'est une tradition républicaine comme ñuy wax mm-hmm. maanaam euh, euh, cosaan la ci euh, réew mi mm-hmm. donc président de la république ñaar yoon la koy def mm-hmm. ci at mi wala exceptionnellement bu xew-xew amee mu def mu def adresse la nation donc loolu lu baax la c'est ça fait partie de la vie de la nation donc kooku dañ koy lu fi nekk la yàgg fii Mm-hmm. waaw discours boobu. loolu loolu du du discours à la nation loolu du rôle mm-hmm. parfois dina brosser rek mm-hmm. quelques grandes lignes ci loo xam ne liggéey na ko. mais liñ ciy toftal léegi. muy bu ñu paree ci parce que discours à la nation en général ay 15 minutes la mën a lay doon ak yooyu. nga wax sur de grands sujets yi. wala de grands événements yoo xam ne am na ci année bi euh, bu weesoo nag kon liñ ciy toftal léegi nga xam ne mooy. Euh, le grand entretien comme ni ñu ko gisee démb. yooyu nag mooy permettre après président bi dugg ci ay euh, yenn discours yoo xam ne ak yenn sujet yoo xam ne dina permettre sénégalais yi nga xam ne. Mm-hmm. seen xel dafa lënt ci yenn yi. Mm-hmm. ñu mën si gindeeku. Mm-hmm. waaw donc moo tax jàpp naa ne c'est c'est d'une manière c'est un bon discours sur la forme. léegi nag dans le fond peut-être su amee ay questions. te être mën nañ ci wax mooy yaakaar naa ci biir sa fil conducteur bi. Mm-hmm. am na question yoo xam ne ci. ci bi d'accord ci nañ ci génne sànq li nga wax sànq mu di grande ligne wax na ci waaye sénégalais yi dañ ko doon xaar bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di emploi des jeunes. wax na ci ndaxte gis nañ ne mbëkk mi ñëw na gaal xale yi ñu ngi jël gaal yi di di dem li nga xamante ni moo di Espagne mais à chaque année dañuy gis ne daf ñuy jik ay emploi yoo xamante duñ koy gis. ñu ren tamit waxaan na ci ndax loolu noonu yow ban jàngat nga ciy def le fait que muy diggee ay emploi te duñu gis mu di ko réaliser. waaw bon en fait xam nga ñoom ñooy am seen nattukaay mm-hmm. parce que démb bi ñu ko posé question boobu moom. Mm-hmm. wax na ne am na ay emploi mm-hmm. yu créé. donc wax ci wàllu mbay ci wàllu agriculture ak yenn yu demee noonu daal. wax nañ ci yooyu. léegi nag euh, loolu mën nañ ko ko constater mais en tout état de cause. xam nga le problème de l' emploi dafa nekk benn problème boo xam ne. Mm-hmm. moom moo jaaxal àdduna bi présentement nii. Mm-hmm. du Sénégal kese parce que boo gisee flux migratoire yi am nii nit ñi di di jóg di dem kenn ku nekk di di am fooy dem. Mm-hmm. di dëkk boo xam ne yaakaar nga ne. fa nga war a mën a sa teraanga fa la war a mën a nekk. nga xam ne kon si at crise moo am ci àdduna bi d'une manière générale. ensuite li ñu nemee ko ci Sénégal sénégalais mooy. koo xam ne li ci dafa am métier yoo xam ne du ko ko def. Mm-hmm. man fi ne nii bu mënoon laaj kan ngay kan ñan ngay def. Mm-hmm. Euh, homme de l'année wala femme de l'année jigéen ñooñu nekk ci mbedd mi laa koy def. Mm-hmm. ñu waaw ñu nekk ñu nekk ci mbedd bi di ko bale. d'accord. j'envoie Mbacké Touba sànq nii rek ndeysaan ci jour férié bi. am na ñu mu ci romb ñu ngi liggéey. tey jii nii ay jigéen. xam mënoon nañ dem def leneen wala kii. donc mu wóor la ne kon am na ñoo xam ne. Mhm. ñu ngi sàmm seen ngor ba léegi. Mhm. ci anam bu mu mënti nekk donc kon sénégalais yi d' abord premièrement man su ma leen doon dëggal mooy. Mhm. Euh, emploi c' est bien baax na mais xam nga nit moom ñaar ñett rek mooy mën na ne. da ngay am xam-xam. am métier. am doole. boo amee xam-xam. te amoo métier. sa doole moo fi sës. dëgg la boo amee métier. te amoo xam-xam aussi sa doole mooy donc mais boo boolee yooyu bu fekkente ne nit ki am na métier mu exercer ko mhm. mooy euh, nit ñi léegi bu ñu yemati rek boo jàngee ba àgg ci benn niveau bi mhm. te mu wóor la ne mënoo dem nga mhm. dem defi enseignement professionnel nga jàng benn métier boo xam ne wóor na la ne lii mën nga cee liggéey parce que réew mi am na ay chantier nit ñaa ngi liggéey nga xam bëgg nañ liggéey bu fekkente ne nag amoo xam-xam amoo métier doole moo fi sës te sa doole nag mënul tëdd di naan ataaye <laughs> ba pare mhm. di toog fële naan réew mi amul liggéey te loolu moom moo fi bëri donc réew pour mu am liggéey il faut yow nga am ci loo ci loo nekk yow ñu xam ko ñu xam la ci métier mhm. wala ñu xam la ci xam-xam ñaar yooyu nag boo ko amul mhm. sa doole ngay mën a jël te boo nangul jël sa doole aussi du sotti donc lan ngay def mooy nit ñi ñëw di la gëmloo ne la bon affaire bi fële la nekk naa nangam na xam li andi loolu covid 19 dafa am ñu bëri ñu nekk Europe woo ay xale fii gëmloo leen ne mag ñi faatu nañ waaw gëmloo leen ne mag ñi faatu nañ liggéey amatu fi fii bu ngeen fi ñëwee naa nga mën a alors que c'est pas ça Europe c'est vrai que mën nga dem di liggéey dans le noir ak genre yooyu mais en réalité Europe boo fa amul boo fekkee dañ ko def c'est très organiser mm-hmm. boo amul kayit liggéey bi nga war a mën a liggéey doo ko liggéey donc ci ay kayitu jàmbur ak ay taaba yi liggéey yooyu ngeen nekk su ko defee mm-hmm. la ngay dépenser pour dem foofu en général bu fekkee investir nga ko fii sax di nga ci mën a génn comme booy Touba yi ni ñu def mm-hmm. gis fii est des yoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi ci kii boo gisee marché occas am mm-hmm. parce que jeunes yi dañu bëgg ngi lol un peu partout di ci wut lu liggéey loolu nag bu fekkente ne réew mi maanaam Euh, dafa am ñoo xam ne. Mhm. ñoom pare nañ pour tas seen yaram ci liggéey bu nekk. Mhm. ak ñoo xam ne ñoom dañuy yaakaar ne dañ leen war a fekk seen salon jox leen seen kii ça pose problème loolu mooy andi le problème de l' emploi. mais n'empêche que nag état bi war na def ay mécanismes yoo xam ne. Mhm. da koy teg en place. surtout des mécanismes yoo de d' emploi yoo xam ne. Euh, ndaw yi danañu ci mën a gis seen bopp. ba pare bu ñu ko sécuriser li tax ma naan sécuriser mooy bu ñu fekkente ne ay financement la yu ñu def ci ñoom. Mm-hmm. mu mu am ay nit yoo xam ne ñoo koy saytu ànd ceeg ñoom ñoom ñu bañ a nekk des exécutants. Mm-hmm. ba nga xam ne ëllëg du ñu jël xaalis boobu. Mm-hmm. bu ñu sonnee jaay ko wala ñu ñu ñu kii ko daw dem bitim réew parce que li cëpp loolu lay demee Serigne Boub wax na ko fii Serigne Boub c'est un grand opérateur économique. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. bu toogee ba ne man defaroon naa ay easy boutique pour dimbale ay nit ñoom ñëpp ñu jaay lañ koy lam lañ joxoon plus de cent nangam millions. Mm-hmm. daal di daw. wutali Europe yaakaar ne foofu la seen njëriñ nekk. loolu mooy li tax li tax tamit jàppale gi war a am tamit ci état mooy ñi nga xamante ni ñoo ngi ci wàllum gerte gi ñoom tamit am nañ jafe-jafe ndax mënuñoo gis jot seeni attestation pour mën a exporter li nga xamante ni moo di gerte yi ndaxte boo demee laaj leen seen problème dañ naan euh, camion yëpp mi ngi ci mbedd mi amuñu ay attestation yoo xamante ni war nañ koo mën a yóbbu loolu tamit est-ce que du doon jafe-jafe ak tamit licence de pêche yeeg yu ni mel waaw xam nga euh, aussi euh, loolu suivre ma sujet boobu carrément mais en tout état de cause xam nga euh, réew moom ak nu mu mënti demee dafa am ay mécanisme dafa am réew nu muy doxee nu muy fonctionner waaw i faut loolu nit ñi xam ko mhm. parce que nit ki ni muy def ak fi mu war a jaar bu am attestation d'import d'exportation mhm. wala d'importation mhm. ay mekk ay yoon la yoon yooyu yaakaar naa ne ku ci jaar certainement di nga war a am Euh, li ñuy wax attestation d'importation xaw ma nag lan moo andi blocage boobu. Mhm. war war na ñoom ñoom lan la ñu expliquer pour ça je ne sais pas. Mhm. exactement lan la ñuy expliquer mais euh, ñoom. Mhm. Euh, xëy ne war nañ xam yoon yi ñuy jaar pour pour am loolu. mais de tout de toutes les façons. li am solo mooy ñoom li li man li ma gis mu gën am solo ci ñoom mooy ñoom libre nañ léegi ci jaay seen gerte fu leen neex. d'accord donc la loi du marché loolu rek déjà seen un acquis. maintenant nag. Euh, bu ñu leen yombalee exportation ce serait bien. Mm-hmm. mais aussi exportation aussi dafa am ay norme ak ay ay ay lois yu ci tegu. d'accord boo sàmmanteeg moom yaakaar naa tu ne devais pas avoir de problème. d'accord d'accord démb tamit euh, El Hadji ci discours bi ñu bëri dañ doon xaar li nga xamante ni moo ci euh, coowu troisième mandat. ndaxte ñu bëri dañ ci yëy bi mais ki nga xamante ne nii mooy njiit li waxagu ci ba démb rek bi ñu ko laajaatee nangu cee wax na nee na loolu waxi daaw la. Mm-hmm. ndax nga jàngatee loolu. waaw su ko neexee mu am na droit bañ ci wax parce que troisième mandat ñëwagul kooku moom mën nañ ko ko concéder mais en tout état de cause am na ñu ciy wax. Mm-hmm. parce que nation bi aussi ay nit lañ yoo xam ne yu indépendant lañ. yoo mm-hmm. xam ne dañuy joxe seen xalaat. nous mm-hmm. sommes dans un pays démocratique. boo xam ne nit ñi am nañu droit joxe seen xalaat. am na ñu koy joxe. ci biir camp am na ñu koy joxe. seulement peut-être man bu ma fa nekkoon dinaa ko wax ne que yow. ban comportement parce que nee na buggul ay nitam wax ci. Mm-hmm. peut-être man li ma ko doon laaj foofu mooy say nit yi ciy wax ne yow am nga possibilité am troisième mandat. Mm-hmm. lan nga ci xalaat yow. dëgg dëgg parce que am na ñu koy wax xam nga. dëgg dëgg mm-hmm. relance boobu ñëwul. relance boobu bu ñëwoon. moom dana danañuy wax position ci ñi ñi koy jàppale pour moom moom troisième parce que am na ñu koy def. ñuy wax naan bon voilà mi ngi ci di jéem a expliquer mi ngi ci dans l'empire de son. premier mandat parce que mandat bële mandat sept ans la woon. Mhm. donc le mandat est de cinq ans la ñu wax xam ñi ngi koy expliquer foofu. Mhm. mais ñooñu amuñu problème. moo tax sénégalais yi jaaxle loolu ndaxte comme que moom la nga wuccee wax. waaw mais loolu nag loolu ña fa nekkoon. Mhm. ñoo waroon a andi question boobu. pour mu leer ci bopp sénégalais yi. parce que ñoom ñoo fa teewloon tout la presse. donc kon xëj na dañ ko faay mais mënoon nañ ko ne c'est biir pourtant. yaa ngi wax ne sa camp bu ñu ci wax mais am na say camp ñu commencé di théoriser sa troisième mandat. Mhm. ne mën naa nekk. Mhm. ñii ne yow sa premier mandat nga def loo xalaat ci ñoom. question boobu bu ñëwoon. Mhm. peut dana gën a mën a leer mais comme question boobu ñëwul loolu peut-être moom moo tax mu demee nii mu demee nii. mais en tout état de cause. man li may wax ci affaire troisième mandat. Afrique man wax naa ne. nii ma gis ñuy doxee. problème troisième mandat du fi jóg. parce que ku agsi au pouvoir da ngay def référendum. Mhm. mu effacé li fi nekkoon nga ñëw ne lu bees la indiwaat donc kon damay soog a commencé. ñi fi ñi fi am ñi fi def troisième mandat yëpp foofu lañ jaar. moo waral Togo la commencé mhm. di jaar Guinée ñoom dem ko diwaat te mën na ñëw ba yegg si te lu mën a nekk la. Mhm. donc kon moo tax ñun dañu war a am des institutions fortes. am ay mécanismes yoo xam ne ay xalaatkat yoo xam ne. danañ ñu tegal loo xam ne loolu dootul mën a nekk. wala boog ñu def. Euh, comme yenn démocratie parce que aussi limitation de mandat n'est pas mm-hmm. un intrant de démocratie mm-hmm. ça ne veut pas dire que nga def limitation de mandat que da nga nekk ci démocratie mm-hmm. loolu aussi mën nga nekk ci mandat intégral illimité ba pare nga nekk un démocrate loolu day am ay ba pare alternance di fa am xam loolu mën na nekk Allemagne amul limitation de mandat te c'est une grande démocratie donc kon Sénégal man li ma gën a gëm sax mooy limite d'âge mooy ñu xool euh, ne 35 ans boo ko amee mën nga yóotu réew mi. loolu tamit am na jafe-jafe di ko yóotu ba ba ngay àgg am 70 ans nga xam tu as 35 ans pour conquérir et exercer le pouvoir mm-hmm. même bu la fekkoon ci sa biir mandat nga bàyyi. jox keneen mu dem loolu mën na ay mécanisme mën na nekk pour loolu amul nag da gis koo xamante dafay am dafay âgé. mais voilà justement léegi nag limite bi bu ñu ko sécuriser woon. Mm-hmm. dëgg dëgg dëgg c'est vrai que limite d'âge am na présentement mais war nañ ko mën a war nañ ko mën a gën a sécuriser ba nga xam ne mhm. nit ki dina am cinq ans yoo xam ne dina ci wut nguur exercer ko mhm. su ko ci amee bu ko exercer deux fois bu ko peuple souverain joxaatee mu exercer une troisième fois la une quatrième fois y a pas de problème parce que c'est le peuple pouvoir moom peuple rek moo ko joxe askan bi mhm. bu la ko askan bi joxee nag wóolu la ci ay critères yoo xam ne yu leer la mën nga ko exercer ci au nom du peuple. Mm-hmm. bu ñu la wóolootul nga dem sa yoon ñun daal ay institutions yu fortes yoo xam ne nit ki dina mën a dem élection tabb un président de la république. Mm-hmm. bu ko tabbee ba pare heure bu ko bëggee wàcce mu wàcce ko. Mm-hmm. te du am benn jafe-jafe comme yeneen pays ni ñu koy defee comme ay Allemagne ak yooyu nga xam ne même bu limitation de mandat amul. président bi wóor na ko ne moom. saa su ne peuple bi mën na ko fal mais peuple mën na ko fal. dëgg dëgg loolu daal bu ñu ko amee yaakaar naa ne jafe-jafe du am El Hadj kontaan nañ bu baax a baax ci éclaircissement yi nga xamante ne indi nga ko ci discours bi mhm. dañuy daal di jàll lekk ci li nga xamante ne nii moo di département Bawol homme politicien yi nga xamante ni nekk nañ fi ndaka la ñuy doxalee ca ban jàngat nga ci am ci doxalin bi nga xamante ni ñu koy doxalee ci biir département bi. doxalin ci ban côté par exemple. Euh, ci ni ñuy politiquer ak yu ni mel. fait bon question bu bu large la. Mhm. c' est vrai que question bu large la bon bugguma leen apprécier parce que bu ma leen apprécier ñoom seen doxalin. Mhm. Euh, day mel ni dama dugg ci biir champ politique bi. Mhm. moo tax seen doxalin carrément duma ci wax mën a wax mais je sais que en tout cas. ñuy yëngu ci wàllu politique ñu ci bëri gëmuñu seen bopp. dañuy dem topp ci benn ginnaaw benn responsable responsable boobu di leen manipuler di leen defloo ay mbir. wala sax bu ñu topp ci ginnaaw benn responsable fii benn responsable day nekk au niveau national ci kaw di leen mëneloo ay combat fii ñuy xeex ak seen i moroom am politique wala ñoo xam seen kilifa lañ ci wàllu politique. politique bu salte également moom lañ fiy def présentement nii mooy di saagante ci internet bi. di mhm, mhm. di di làqu ci ay ay ay ay ay euh, ay ay mhm. parce que ren rek laa mos a gis par exemple benn benn boo xam ne dañ cee trois. benn nit boobu trois comptes te mhm. xas benn kilifa ci wàllu politique mhm. te ñu ne kilifa googu bokk na ci ñi ko créé defar ko moom. est-ce que nekkul ñàkk booloo googu am ci seen bi moo war a. waaw non non c'est-à-dire que waaw cest à déjà am nañ ñàkk booloo. Mhm. mais aussi ñàkk nañ ay euh, maanaam am néew nañ doole. bu fekkee ci côté pouvoir bi la néew nañ doole parce que aussi cëru cëru politique. ñu koy séddale li ci ëpp dañu koy jox ñi nga xam ne dañu am doole yor mbooloo ñi nga xam ne dañuy gañee loolu moo tax peut-être yenn cër politique yi mënuñ ko am donte ay jàmbaar lañ sur le terrain su fekkee ci côté pouvoir bi la côté opposition bi aussi mënoo cee natt ni kii moo yor doole ji ndax toujours bu ñu gañee mbooloo la ñuy gañee ñoom ci coalition la ñuy demee donc fii kon doo xam presque kan mooy kan ak kan mooy def lan mhm. léegi nag mhm. euh, moi je les invite tout simplement ñu dellu si waat ci orthodoxie maanaam def politique avec des armes conventionnelles mhm. maanaam xeex-xeex politique sur le terrain mhm. nit ki booy jàkkaarloo moom nga jàkkaarloo moom sur le terrain mhm. ngeen xeex nga combattre ko xam nga li ma loolu man moom laay moom laa leen di digal moo tax dama jàpp ne euh, fii politique daf fi dellu ginnaaw donc ñi koy incarné c'est vrai am na ci ay nitu valeur yoo xam ne ñu ngi ci ba léegi mais am na des gens yoo xam ne quand même dañuy incarner des antivaleurs. est-ce que jotul ba lañ ciy dugg tamit ñu tàggat leen ci. waaw mais loolu moo amatul quand même maanaam tàggat nit ki ci wàllu politique ci comme ni ñu ko daan gisee bu njëkk ba nga xam ne euh, da ngay gis ay ay ay ay ay école du parti ak yooyu. Mhm. comme parti socialiste. Mhm. loolu amatul. Mhm. léegi nit ki day ñëw rek euh, soobu ci wàllu politique fekk xamu ci dara alors que politique science la dañ koy jàng d'abord. léeg sax nga gis benn kilifa di def benn acte si wàllu politique doo ko comprendre. ci loolu sax ndax rafetlu nga tamit kilifa yi nga xamante ni ñu ngi dugg tamit ci biir politique bi ndax rafetlu nga loolu. maanaam d'après xaste yi ci ci nemmeekoo. waaw mais moom yi waxante yu ñaaw yi kilifa yi ñu leen ciy gis. bu baax a baax ndax rafetlu nga xam nga xam nga d'une manière générale moom politique moom ku ko wax moom ah, wax wax wax wax xastante. Mhm. ak attaquer nit ki ak déstabiliser ko. Mhm. loolu ça fait partie intégrante ko bëggul doo ci dugg mhm. mais man contre ma ay kilifa di dugg ci politique parce que politique c'est une façon de gérer la cité nan lañ ko war a mën a gérer mhm. léegi nag mais nag boo ci xesee dugg yaa ngi ci benn ring de boxe boo xam ne mhm. tu reçois des coups mais tu en donnes te lay dóor ngay dóor donc euh, politique amul éthique comme li ñuy ci politique dëgg dëgg dëgg. Mhm. ñun bi ñuy doxal Sénégal. Mhm. ay éthique bon ay affaire u kii man lii affaire ngoor ngor ak c' est l' intérêt le plus égoïste qui lie les personnes maanaam nit ñi ay intérêt ñoo leen lëkkale intérêt yooyu bu ñu fa nekkatul kenn ku ne day dem yoonam. Mhm. c' est ça la réalité. léegi nag kilifa yu ciy dugg ñoom ñooy def seen choix. man de contre ma vraiment ñu ci dugg parce que y' a y' a am na ay kilifa yu bëri yoo xam ne kilifa yu mag lañu woon. dem ba yore ay xilaafa. def politique. Mhm. defoon politique gis nañ ko. ñoo mhm. xam ne ay ay xalif lañ présentement nii. Mhm. fekk defoon nañ politique démb ci seen ci seen jamono. te mënatuñ koo dindi. voilà parce que diine bañu. Euh, tey jii nii boo ma doon sitee rek ñenn ñoo xamante ni ay ci biir département bi yoo xamante ni rafetlu nga ni ñuy doxalee kan ak kan lay doon. bon c'est-à-dire bëgguma euh, quand même ay noms pour ne pas frustrer certains. mais je sais que ku mel ni. ñeneen ñi rek dama cee jàng. waaw mhm. waaw c'est-à-dire que ils sont nombreux quand même ils sont nombreux parce que euh, vraiment bëri nañ ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi politique quand te kenn mosu leen dégg ñu saaga ku mel ni par exemple Abdoulaye Gaye Fall. Mhm. j'ai apprécié j'apprécie quand même sa sa façon de faire la politique parce que. Mhm. Euh, intellectuel la jàng na. Euh, jàng na communication. am na lu mu xam ci politique. dugg na ci mi ngi exercer mi ngi jéem autant que faire se peut di réunir ay nit autour de sa personne mm-hmm. di incarner benn benn valeur bu muy jéemee incarner donte il n'est pas exempt de reproche mm-hmm. ci ci ci yenn yi mm-hmm. mais quand même mi ngi def une politique saine d'accord duñ ko dégg mu nekk ci terrain bi di xaste wala muy saaga peut-être peut aussi xëy na dafa xam fi mbokk moo tax mu mu doxalee nu mel noonu te par contre ci wet gi am na ñeneen ñoo xam ne moo ngi ñoom xëy na xaw mhm. nañoo bokk statut mhm. wala ñu bokk ci famille te terewul ñoom bu ñu waxee da ngay mhm. jàpp euh, am na lu des loo xam ne mën na leen ko reproché ci wàllu comportement. d'accord euh, leeral foofu tamit am na solo ñu gis ne tamit euh, milieu bi nga xamante nekk nañ ko mu di milieu médiatique bi ñu gis ne yeneen i daan daan na ci judduwaat jugee ci ki nga xamante moo di njiitum réew mi ci façon de faire lu ci bëri ci presse en ligne bi mu mel ne dafa pëcc xoowoon lool naka nga gisee daan yi nga xamante ne nii indi nañ ko ci biir presse bi. waa xam nga euh, bu fekkente ne président de la république dem na ba xool internet. Mhm. parce que internet la la spécifié. Mhm. parce que boo xoolee aussi Sénégal am na ay médias classiques yoo mhm. xam ne yàgg nañ fi de grands groupes de presse yoo xam ne ay professionnels. yu jàng wàllu média. ñoo ci nekk di ko doxal. ñooñu amul problème. Euh, donte léeg am ci ñenn ñoo xam ne xëy na dinañu am ay yenn jafe-jafe ay quelques preuves yu égaré yoo xam ne ña nga fa nekk. Mhm. di wax léeg loo xam ne euh, waxul mhm. mais d'une manière général dérive yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp maanaam jafe-jafe yi nga xam moom la ñu nekk gën a nemmeeku. Mhm. mi ngi amee si internet bi. parce que internet bi aussi dafa naqaree contrôler donte am na loi sur la cybercriminalité ak yooyu. mais internet moo naqaree contrôlé. Mhm. boo ko bloqué woon fii peut-être mu ngi visible fële bitim réew wala muy visible ci yeneen réew ak yu demee noonu. Mhm. léegi tey jii. Mhm. lan moo mën a nekk mooy euh, ñu gën a def sensibilisation parce que boo gisee temps yële am na sa benn mbokk xale bu jigéen boo xam ne. gisee ni mu def ci internet bi <laughs> nga xam ne wone yaram xam naa ne man bi ma déggee président de la république muy wax man jàpp naa ne ndaw soosu bokk na ci ñi tax Mm-hmm. parce que quand dafa dafa xotti war may média mais est-ce que tamit des fois est-ce que nekkul tamit des fois faute ci patron de presse yi ñoom ñi nga xamante ni dañuy ñëw waaw mais mais xam nga site internet moom presque ñu ci ëpp amul patron de presse mm-hmm. ñi koy ubbi du ñu xam dara ci média président de la république wax na ko démb mm-hmm. da ngay dem léegi nga jënd sa nom de domaine nga ubbi sa site internet nga jël ay xale yu jigéen yoo xam ne peut-être macha allah bon euh, boo leen xoolee ci écran bi dinañu am lu ñu dégagé. nga teg leen foofu xam nga gars yi bëgg nañu yooyu. Mm-hmm. su ko defee gars yi di ci di ko di ko seetaan di ko mm-hmm. xool. Mm-hmm. xale yi di exhibé wu di wane seen bopp di wane seen yaram affaire yooyu. bon finalement presque day mel ni genre euh, euh, pornographie la ñuy def ci ci ci ci ci écran bi. yooyu moo ci bëri. boo xoolee internet boobu moom la apparemment. léegi nag ñu mel noonu. su fekkente ne tàggatuñ la parce que journalisme moom soit da koy jàng ci école. Mm-hmm. wala ñu tàggat la ci ab rédaction. waaw nga mm-hmm. ñu tàggat la ci ab rédaction boo xam ne ay professionnels ñoo fa nekk. nga am rédacteur en chef boo xam ne xam na ni journalisme du dox mu jàngal la ne serait yenn règles yi gën a élémentaire pour collecter jël ak defar information jox ko nit ñi mm-hmm. parce que. Euh, ci code de la presse ouverte bi. Mhm. yu article yu bëri day ñëw ci ci ci loolu. dafay ñëw ci loolu. Mhm. loolu yi ngay gis nii. Mhm. mooy nit ki nan la war a traiter information. nan la ko war a jébbali askan ak bu ci juumee nan la war a def pour rectifier ko immédiatement. parce que def cee bëri njuumte yooyu. ak dérive yi. ak maanaam léegi dem def loo xam ne day wor day worook ci suñu réew di doxe ci wàllu cosaan ak aada ak ci wàllu diine mhm. yooyu xam nga journalisme daf koy tere aussi mhm. parce que réew mënoo ñëw benn ko mhm. nga ñëw andi loo xam ne day andi fitna ci société bi day andi fitna ci askan bi day andi fitna andi ay bodde compté ci biir xeet wala wàllu diine ak yooyu yooyu yëpp amoon na fi ci ci convention collective bu bu 73 ba mais bii tamit am na ci xëj na li ci yokk mooy léegi kan moo war a yor carte de presse pour ñu xam ne kii mooy journaliste loolu nag bu amee. Mhm. ba ñu xam ñan ñoo ko war a yor ak kan moo ko war a doon bu boobaa xëj na yenn yu bëri dina wàññeeku. mais daal euh, ñi nga xam ne wax dëgg yàlla comme yéen ñii. maa ngi leen di suivre. Mhm. nga xam ne euh, information moo leen ñor. da mhm. ngeen a bëgg joxe des informations askan bi dëkk Touba. pour ñu mën a xam lan moo xew ci àdduna bi. foofu li ma leen di digal tout simplement mooy ngeen continuer di def di professionnalisme. bu leen dara jaral ci àdduna mhm. nit ñëw def loo leen loo xam ne boo toogee ak sa conscience di nga xam ne lii waruma woon def. loolu moom ko am éthique ak déontologie sax doo ci doon. waaw franchement éthique ak déontologie boobu nag mhm. moom mooy ci. problème moo xaw a jafe mooy base bi mhm. éthique nag morale la mhm. nit moo koy imposer boppam dëgg la mooy maanaam lu baax ak lu bon ñëpp xam mhm. moo tax daal ñi nga xamante ni ñooy patron de presse yi war nañoo xoolaat bu baax a baax ci fànno ndax ki nga xamante ñi ñuy recruter ndax ki nga xamante ni dafa def formation def ci lu bëree bëri te bu ñuy wax dañuy généraliser duñ dañ naan ñëpp la te bu ñëpp yemoon am ñu gëdd seenub cër kon nag jar na daal ñu taxaw seetluwaat bu baax a baax ndax man moom suis d'accord vraiment ci li nga xamante ne nii euh, njiitum réew indi na ko ci nouveau code de la presse bi ndaxte boo xoolee des fois da ngay gis yenn image yoo xam dafay doy waar euh, jógee ci yenn journalistes yeeg yu ni mel te ñooñu sax duñu ay journalistes ay animatrices la ñuy doon yooyu mais dañuy généraliser ne ay journalistes la foofu mm-hmm. daal yaakaar naa yéen ñi nga xamante ne nii yéen a nekkee ci média classique bi war ngeen a jàppale bu baax a baax ñi nga xamante ñoo nekk ci presse en ligne bi. oui absolument waaw loolu moom euh, toujours ñun. xam nga presse bi dañ cee bëri njaboot. Mhm. dañ ci am njaboot quoi. Mhm. Euh, suñu njaboot googu nag. Mhm. fu ñu leen gisee rek <laughs> bëri nañ ci ñoom ceerno ñi ak yeneen gars yu bëri ci suñu njaboot lañ bokk. yow mii sax xam naa ne dañ la boole ci njaboot gi dëgg la dëgg <laughs> voilà léegi euh, <laughs> li dañ leen di kon continuer di wax rek. jiital mhm. liggéey bi mhm. jiital professionnalisme bi mhm. jiital collecter information bu baax jox ko nit ñi di ko recouper di éviter lëkkaloo ak nitu politique yi ñu ñuy manipuler parce que li ëpp liy def ci loolu manipulation la manipulation sax dina code de la presse bi di di nga ko ci gis euh, bu fekkente ne nii journaliste bi code de la presse bi journaliste bi dem nga ba nga xam ne yow source d'information yi nga am. Mhm. dañu la wax nga protéger ko. maanaam mhm. nga bañ ko wax kenn. Mhm. mais boo demee ba mu wóor la ne ki la joxoon information bi daf laa manipuler. am nga sañ-sañu ne diw mii kat moom ko jox parce que manipulation bi moo tax. dëgg la sauf en cas de manipulation. di ko gis ci code de la presse. donc da nga war a protéger say sources. sauf en cas de manipulation manifeste. mu manipulation bi nag mën na jóge ci cours mën na jóge ci ku nekk. Mhm. nit koo xam ne ki ensuite éviter nit jaar ci yow pour pour pour détruire nit. Mhm. surtout waaw nit jaar ci yow pour détruire nit. surtout mhm. donc euh, nit ki même boo amee moom problème. traité ko de façon professionnelle. boo ko mënul nga maandu ci ay ci ay mbiram. dëgg la foofu loolu quoi. kontaan nañu bu baax a baax ci loolu mais Sénégal tamit ku wax lii wax la ca des ndaxte fi mu nekk nii parent yi amoon nañ am nañ njàqare fan yi lool ci éducation sexuelle bi nga bëgg nañ koo dugal ci ñaangum gone ñu ngi naan nag du amam déet waaye boo xoolee daal Sénégal 95 pour cent de musulmans xam nga ne loolu waruñu koo mën a def ndax ban jàngat ngay def ci li mel. waaw xam nga loolu coow la andi. parce que peut-être euh, mën naa ci am na mën naa ci wax am na lu ma ci xam. Mm-hmm. Euh, mais euh, mm-hmm. éducation sur la santé euh, de la reproduction. Mm-hmm. éducation sur la reproduction d'une manière générale. Mm-hmm. loolu moom ba école sosoo ba léegi mi ngi fi. ñu jàngale ci biir école yi en économie familiale. aussi bien en sciences naturelles et de la vie et de la terre. la reproduction. parce que bu ma jumul en classe de quatrième koy jàngee. nit ki nan lay war a mën a amee doom nan lay kii fécondation. ak mhm. genre yooyu. Mhm. loolu moom kenn ku ne de boo ko jàngul fii boo demoon di def faculté de médecine wala dara di ko jàng. Mhm. donc loolu amul problème. lan moo am problème mooy li ñuy wax document boobu nga xam ne dafa jóge UNESCO. bon comme gouvernement bi nag. oo premier chef le président de la république rejeté na ko. nee na loolu. luñ ci mën di dëxëñ ak luñ ci mën Euh, junj. Mhm. mu jëm ci wàllu affaire ko parce que xam naa ne ay affaire góor jigéen ak affaire genre yooyu. lañ ci mhm. lañ ci lañ ci ragal. Mhm. nee na loolu du mos a am rejeté na ko. dañ leen di amal benn euh, préjugé favorable. nangul leen loolu. mais en tout de cause daal li ñu mën a def mooy. la Descartes doon wax. si tu bien conduire ta raison et chercher la vérité dans les sciences mhm. il faut se conformer aux lois et de son pays loolu bokkoon na ci ay maximum mhm. moom moom Descartes boroom xam-xam bu mag bu nga xam ne philosophe la mhm. donc nit ki sa réew li fay dox muy aada muy cosaan mënoo ñëw nga lem ko benn boo ko defee da am problème même gis nga même gis nga diine bi muy wàcc sax diine l'islam muy ñëw fekk arab yi am ay jikko yu ñu yoroon mm-hmm. yoo xam ne diine lislaam bi daay bi waroon commencé ñëw rafetlu wu ko mm-hmm. ñëwul rek ne leen bàyyi leen lii mm-hmm. dama lay dama lay jox par exemple exemple bi ñuy tere naan sangara par exemple aay yi njëkk ñëw terewu ko de façon formelle dafa ne rek ah ay carte ak sàngara li ngeen ci am njëriñ li ngeen ci am loraange moo këpp xam loolu terewul dara donc boo amul kii da ngay naan ah kon de am na njëriñ bu ci nekk baal ma continuer mhm. mais parce que boobu da doon préparé nit ñi mhm. nit ki mënoo ñëw rek jékki-jékki ne ko baal nangam wala defal nangam ci ci mhm. ci wàllu kii moo tax tey erreur yooyu la ñuy def ñëw yaakaar ne les peuples africains ak xaalis wala ak kii mën nga leen def loolu Sénégal nag wax dëgg yàlla ba léegi mu ngi téyeegum valeur yooyu mais nag mais teewul ba tey mi ngi am ay ñuñ daañ ndax gisoo joué xale yi sax ñu ciy dugal moo tax man la moo tax man la mhm. mucc ñu présentement ci yenn dérive mhm. xam na moo tax mucc mhm. parce que tout simplement euh, adduna bi moo toll foo xam ne ñun amatuñu contrôle xam nga am nañ mën nañu am contrôle ci biir jàng mi ci de façon formelle ci école yi ak yooyu mën nañ ci am contrôle mais mënuñu am contrôle ci internet bi dëgg la internet bi ñun suñu doom yi li ñuy xool yow su yow yow sa doom wala man mi sama doom par mm-hmm. bu toogee la muy xool ci internet. doo ko yëg ko contrôler à 100 pour cent doo ko yëg doo ko yëg. mënuma ko yëg mm-hmm. kon euh, lenn rek laa mën a def mooy di di di di wax di yar. Mm-hmm. di di di mais xel yi ils sont incontrôlables. te loo leen gën a tere. ci loolu la ñuy gën a dem. mais mais parce que adduna bi moom moo demee noonu. li des nag mooy que les parents soient beaucoup plus vigilants. di xool xale yi. Mhm. di xool seen i comportement di xool ni ñuy doxee pour que yu mel ni bañ même même suñu njiit yi ndaxte bi nga xamante ni joué alcoolisé yi bi mu ñëwee waa ministère du commerce ñoom dañ ci daal bëgg a dégager seen i responsabilité mu demee nag ba loolu bëgg am xam nga ne y' a problème. waaw mooy loolu xam nga c'est-à-dire que ñun suñu autorité yi parfois euh, ñun ñun Sénégal dañu am problème de de contrôle. fii par exemple tey jii nii gis nga yow mën nga jógee fii dem ba Dakar. Mhm. benn alkaat du la contrôler mhm. mën nga jóge fii yépp sax mhm. aw ñoll wala lu bon mhm. wala nga jóge Dakar yor ko ñëw fii kenn du la contrôler dama lay jox benn exemple réew mu mel ni Mauritanie rek boo fa demoon tey jii doo dox 10 kilomètres te gisoo checkpoint gisoo contrôle réew yooyu c'est des pays très regardants ci seen wàllu sécurité ak di contrôle li dugg ci seen dëkk ñun nag malheureusement loolu mooy suñu problème contrôle bi doyul ensuite y a trop d'impunité impunité yu bëri yooyu di am ak lijjanti yeeg yu ni mel moo tax ñun ñu jóg ci am problème ci tolof tolof yu mel noonu dëgg la moo tax état bi war na changer comportement restaurer mhm. l' autorité de l' état maa ngi dégg dem Macky Sall di wax mais ba léegi autorité de l' état dafa des. des ñu day wax naan ay kii mais ni ma dégg muy wax. la mhm. ñuy a sax fragiliser. l' de l' état dëgg la euh, amoon nañu mbégte bu baax a baax doon janoo ak yow suñu émission bi di seen entretien yaakaar naa ne ku dégg li nga waxee rek xam ne suñu yi nga tey xam-xam daal dinay génn fii bu baax a baax ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ak mbokku internet yi nga xamante ni ñu ngi lay bàyyi xel ci 24 actu. waaw li may tàggatoog euh, mbokku internet yi simplement mooy di leen euh, d'abord souhaiter une bonne et mm-hmm. heureuse année. 2021. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que bi kat nekk na année boo xam ne 2020 bi. année bu métti waaw bëri ay épreuve ci wàllu Covid 19. parce que Covid 19 boobu sax waxuñ ci. mais dama ci profité ci dernier mot bi. wax ne feebar la boo xam ne bu existé la mu ngi fi. Mhm. am na mhm. c'est réel. Mhm. parce que ku mu dalul aussi dal na ku la jege wala koo gis wala koo bokkal wala koo xam ne. Euh, xëy na gis mi ngi si kii. lim fi rey aussi bëri na ci Touba gi ñu nekk rek ñu ngi ci cinquante morts. plus de cinquante morts. juróom fukki nit ak lu topp faatu nañ fii. te Covid 19 moo leen rey loolu xam nga ne kon lu. doy waar la. Mhm. moo tax kon du ñuy ñaan yàlla. Mhm. année deux mille vingt et bi yàlla dimbali ñu. Mhm. ba feebar boobu jóge fii. mais aussi yàlla leeral suñu xel. leeral suñu xol ba ñu nangu di dégg te di topp. mooy lu ñu digal jëm ci wàllu feebar. ñu topp mais feebar bi aussi. du feebar boo xam ne jógee gum na fi. mën na fi toog ay at yu bëri. moo tax. Sénégal nañuy am kóolute ci ñi nga xam ne ñoom lañu ñu jiital. surtout ci wàllu ñi nga xam ne ay scientifique lañ. Mhm. bés bu ñu demee ba andi benn vaccin. Mhm. parce que feebar bu mel nii. Mhm. pour xeex ko. ñàkk vaccin rek moom moo ko fi mën jëlee. nit ñi delluwaat ci lañ newoon. li bu fekkente ne ni nit ñi ñu ngi véhiculer ay information comme quoi vaccin nangam vaccin yi vaccin topp ñenn ñi nga xam ne peut être <laughs> xëj na kiiwul buñ dañuy feebar bi daf fi xel di nekk di gën ñu gàllankoor <laughs> mais comme nit ñi mm-hmm. ñefe nañ mm-hmm. parce que xam nañ ne feebar bi graaw na te nërmel na àdduna bi ñefe nañ ba en un temps record ñu trouver un vaccin mm-hmm. suñuy scientifique yi nga xam ne ay sénégalais lañ gënuñ ñoo bëgg suñu bopp gënuñ ñoo bëgg réew bu ñu demee ba saytu ba gis ne war nañ ko mën a jël na ko nit ñi nangu jël ko parce que bu ñu ko jëlul parce que bu ñu demee ba réew yi nga xam ne ñooy réew àdduna bi jël ko ñun ñu bañ ko jël mm-hmm. boo fi génnee bëgg a dem ci beneen réew force da ko jël mm-hmm. te ko bu boobaa mm-hmm. ñun yaakaar naa ne tey jii nii garab yu bon yi ñuy utiliser à longueur de journée te nga xam ne fees na dell ci dëkk bi ñu di ko naan guddeeg bëccëg mhm. ak ay garab yoo xam ne fu ne lay jógee ay Inde fu ne ñi koy jaay ci dëkk bi fii te nga xamuñ ñi koy jaay mhm. yooyu ñoo gën a bon foofu ay ay ay waaye donc na nit ñi bi moom suñu produit bi moom na nit bàyyi xel ci loolu <laughs> euh, kon euh, préparé ko bu ñu ci scientifique yi joxee aval pour ñu def ko ñun ñëpp ñu dem def ko ndax feebar bi mën fi jóge définitivement seen produit du bii nag man euh, xaw super la super ah. life moom moo ñuy gunge ci suñu émission bi di seen entretien ah, produit bu naturel la ndax boo gisee rek euh, base bi yëpp fruit la te fruit dafa baax ci li nga xamante ni waaw yii de man yi ma ci gis li ma ci gis déjà man ci fruit yi ma gën a bëgg la la mu ñëw ci nekk dafa am solo lool ci dundu doomu aadama waaw fruit yi ma gën a bëgg muy ay ay raisin ay uh-huh. euh, comment ça s'appelle ay papaye quelque chose comme ça mm-hmm. ak ay melon ñoo ci nekk ak pom ak mhm. pomme et tout ça. Mhm. donc kii kii moom bu fekkee lii moo ci nekk moom vraiment. produit la boo xam ne te ça soigne nag. waaw ça soigne mhm. waaw ça coûte combien. 40 000 40 000 francs CFA. 40 d' accord kon yii moom vraiment man dinaa fexe bu ma génnee ci émission bi fexe nu ma ci amee te dinaa wax également. Uh-huh. vraiment gars yi ñu. waaw fii bu ma ko dóoree mu baax moom. Uh-huh. képp koo xamante ni daal bëgg ngaa jot ci produit bi da ngay ñëw ba 24 actu wala nga woote ci suñuy numéro 75 630 70 70. merci beaucoup ñu daal la koy livré ba fa nga nekk El Hadj. jërëjëf merci au revoir. bu baax a baax rek doon feggoogum li nga xamante ni moo di plateau bi di seen entretien gis ngeen ni rek indi na fi ay leeral yu am am solo te fi ñu ko jeexalee rek foofu laa koy jëlee mu di mbas mi ndaxte feebar boo xamante ni léegi mu def toll ak un an arrêté lépp loo xamante ni moo di activité doon nekk fii ci Sénégal lu ci mel ne économie bi lu bëri rek daal di taxaw. yaakaar naa ne bu nekkoon ay tappaleek njublang duñ ko def ndaxte boo xoolee Sénégal ni mu demee nii métti na lool ndaxte lu bëri dafa daal di suuxee ñuy ñaan rek ñi nga xamante ne nii moo di askan bi ñu bañ a bàyyi gën a jàpponteeg li nga xamante ne nii moo di mesure barrières yi kër docteur di digle ndax xeex bi rek daal di gaaw jeex ba activité yëpp rek daal di mën a euh, comme ni meloon doon am mbégte tamit doon jàkkaarloog yéen suñuy mbokku internet di leen jox dig daje ba seen beneen numéro seen entretien jërë ngeen jëf